président voilà voilà. voilà c'est-à-dire dama wax ne. waaw dama non non yow li nga wax waxuma ko dama ne la ci boppam laa toog yow. waaw voilà yow da nga ne eh, est-ce warta dindi. xam nga dama déglu rek tu as parlé deux fois. deux fois. première fois bi dem da nga ne man dama ne euh, casquette premier ministre ak. Mhm. ak euh, président Pastef mhm. yow nga ne nga ne est-ce que euh, warta dindi. Le président du passé. Le tout euh, Pastef président passé. Mm. nga non il n'est plus on le on on doit ma a wax sax moi. on doit même plus le considérer comme le président de passé voilà c'est-à-dire C'est presque ça tu m'as dit waxul loolu de non non non. yow yaa dégg mais waxul loolu. waaw on le laisse continuer pour comprendre. mais déglu Les rek déglu ma rek mais voilà mais. xam nga dafa am ñi bëgg di suul ndaanaan man mënoo maa suul tuuti nga ci. may ça. rek sax duñu bokk. non non non euh, may ma rek c'est-à-dire. survoltage la nii. Euh, c'est-à-dire fi mu nekk nii euh, Ousmane il peut se passer de la présidence du passé pour éviter il y a une confusion yi am je parle il parle en tant que président de PASTEF. Mhm. man il parle en tant que président de PASTEF mais il n'est pas seulement président de PASTEF il est aussi premier ministre ci la tontu est-ce que moom warul président de PASTEF avant ma ci tontu la ça réagir mhm. mais li ma bëgg wax pour éviter confusion ce serait mieux que mu jël président de PASTEF jox ko keneen mhm. parce qu'aujourd'hui euh, on ne l'exige pas. Non, ils l'ont exigé du, président de la République. Euh, Yakana, avant de le service, il a démissionné de son poste de secrétaire général du, parti. ce que vous voyez mm-hmm. présidence du parti, man, euh, man, Ousmane, je ne sais pas si mais man, si je man, on a démissionné de présidence du parti. D'accord. Alors, Léla, euh, il va être fixé sur son sort tay yaakaar naa que bu à partir de de dix heures la ñuy joxe verdict bi. Bah Diakhaté daal Free Diakhaté on est de tout cœur avec lui on est tous des Bah Diakhaté incha allahu mhm. moi je, avant que de de répondre j'ai une question pour le président Mamadou Ndiaye. Mm -hmm. ce que Bah Diakhaté a fait ou a dit je pense que c'est amnistie bi yóbbu na ko parce que amnistie jaar na fi benn beneen bi li Bah Diakhaté wax tontu ay nit ñooñu quand il faisait pire vous vous étiez où ak Amina parce que dégg naa Amina aussi critiqué wu quand les gens faisaient ça le mal dans ce Sénégal là di c'est une autorité di ça suñu président di vous étiez où. mais euh, oui on a toujours euh, on a on jamais moi jamais apprécié qu'on insulte. un président de Mais non, mais tu vois pas que c'est euh, c'est de l'or de l'or Non, non. Non. vidéo vidéo de 2022. bi ñu demee ba ci biir ba pare mu ne moom lanceur d'alerte la parce que dafa dañoo gis ay këru joomaay ak Ousmane Sonko yoo xam ne am nañ ko ak yoo xam ne joomaay moo ko wax mu di laaj ne lii fan la jógee nangam ak nangam ak nangam. waruñu ko arrêté ci vidéo bu ñu def. en deux mille vingt deux voilà. parce que la vidéo bu ñu def en deux mille vingt deux. yónni GIGM ñu jëli ji ko à quinze heures. kii nu mu tudd amnistie bi amnistie bi effacé na ko. effectivement waaw.

Plato, euh, plateau vous me poser ma question je réponds et moi je suis quelqu'un euh, j'ai toujours dit j'ai toujours dit insulter le président de l'Afrique, insulter le premier ministre ce n'est pas les insulter en personne mais c'est un manquer de respect, aux institutions mhm. ça c'est quelque chose je l'ai toujours défendu moi c'est pas la personne qui m'intéresse c'est les institutions qui m'intéressent mhm. c'est les institutions qui m'intéressent quelqu'un qui incarne les institutions qui a le mérite d'être insulté ne doit pas incarner les, les institutions, il ne doit pas être là-bas. Et, c'est pareil, ce n'est pas seulement pour le président ni le pour le premier ministre hein, mais de même que pour nos magistrats et juges je je suis pas euh, d'avis avec les insulteurs parce que oh, quand je dis les institutions mhm. c'est ça qu'ils ont appris à nos jeunes Lolo ñu man mi jangal ko kenen ak mhm. Mhm. man jang ba dafa parce que man meluma ni waaye loolu lañ ñu jàngal loolu lañ ñu yaree yare ko suñuy xale kon la ñuy def se l'arroseur arrosé on récolte que ce que l'on a mais ndey xam nga li nga ma soyons sérieux ba muy am kenn ñemewut a wax kenn ubbiwu sa gémmiñ wax kenn dénoncé wut sens contraire bu Macky Sall jëlee ay sanctions nit ñi ku ne yor sa làmmiñ di wax ne mi ngi tëj mi ngi tijj. japp na ñaari journaliste barki dem li fi pap ala ñaa wax wala def ko ñooñu defaguñ ko ak yeneen i télé ki yeneen i rajo maintenant c'est eux qui sont au pouvoir kenn du leen wax kenn du leen critiquer jomaay mi lu mu waxoon magistrat yi da ngeen a bëgg jël Ousmane Sonko dagate ko togg ko jox ko Macky Sall mu lekk ko tey ñu ne ñun nañu respecter justice boobu ñun ñu ne tey nañu respecter justice boobu lan la ñu waxoon Ousmane Sonko dafa ne woon barki dem ba ñu jël Cheikh Bamba dafa ne kenn warta jëli ji kenn procureur warta autosaisir nan la ñuy def ci Bah Diakhaté autosaisir dem jëli ji ko bëccëgu ndar kaama 15 heures ci vidéo boo xam ne ça date de combien d'années ci loo xam ne am amnistie bi yóbbaale na ko ñu ne kenn du wax ma kii li mu wax nii Ousmane ko waa jii nekk tey ca biir pale ne dafay tabax jàkka wax na pire vidéo baa ngi nii heure boo ma mayee ma teg ko audio bi Cheikh Omar Diagne muy djign Ousmane muy djign Macky Sall góor jigéen ak ñi mo andal suma paré paree naa la ko yónnee bés boo ma mayé nak man dina ko tek nañu jël fi c'est l'arroseur arrosé. xam nga ndey li ngay wax ni lolu mo moo fi war a jóge. munu fee ndax ñi fallu ñom ñoko fi instauré. wa wa mais wa yo sérieux euh, euh, xolal xam nga xam nga dama dafa am lo xam dafa am importance c'est pas parce que euh, Amina bi def na dara. Euh, loo xam apprécié ma ah, mais est-ce que est-ce que ce ne sont pas aussi les retombées parce que ñoom ñoo jàngal Sénégal. non gatsa gatsa ba ñu ba ñu ko. mais d'accord. Mhm. mais jusqu'à quand. jusqu'à quand il faut que ça s'arrête à un certain moment. Nous, mhm. ah? ñan ñoo ko arrêter ñun nous qui sommes là c'est nous qui devons œuvrer pour que ça s'arrête mais si buggee ne ah ñoom ñoo ko dañuy dañuy il su ñu ah yële mais jusqu'à où on va aller où on va s'arrêter où hein? il faut quand même qu'on se respecte il ne faudrait pas que euh, euh, les étrangers que hors du Sénégal que les gens nous considèrent comme ñi ils ne respectent pas leurs institutions ils ne respectent pas leurs leaders ils ne respectent pas leurs parents ils ne respectent pas leurs guides guide religieux. non tu me fais rire quoi. non hein? tu me fais rire. Euh. pourquoi. mais parce qu'on a vécu ça. ba ñooñu xam ne ñu respecté wuñ leen ba panafricain yooyu am fit gu day ne di xas suñu président bi fi ne

Quand il y a les panafricains de gauche, de la, de, de, du Cameroun, du Mali, ainsi de suite, di wax ci suñu dëkk dañuy xas di xass président bi di wax jo Ousmane Sonko yow bo jëloon réew mi du démé ni paré di ko wan ne ko yow li ñu waxanté won ak yow respecté woo mais Branco il a fait pire il a Branco dafa ñëw ba Sénégal daal di. non xaaral waxuma la waxuma la waxuma la sax xaaral waxuma la lo sax mais dama ñan ñoko ko may ay homme de justice ñoko ko may ay sénégalais comme yow comme man ñoko ko may ñoo yablu seen dëkk déggoo la man sama président may xuloog moom may xeex ak sama président Ousmane Soko May defante moom mais may ma étranger mu def mu defante koog moom mhm. parce que sama biir dëkk la mhm. waaye ñoom dañoo may ay jaamur ñuy defante ak suñu autorité Sénégal lu musul am Sénégal ñenn xool yi day neex ñenn man toi tu me connais yow xam nga ne man àdduna du neex naqari ba ma saaga Diomaye wala ma saaga Ousmane Sonko du ñoom man dama nawloo sama bopp man sama bopp laa respecté waaye ku leen fay seen bor ah <laughs> di nga leen fay ba wis seen bi te xëy na man du ma leen fay waaye ñeneen da nga leen fay. très bien d'accord. pensée unique bi moom ça va pas passer au Sénégal et il veut faire passer ça au Sénégal. xam nga ndey man li wax. Euh, je pense le gars est là il a insulté Macky Sall muy kii ñu dugal biir palais tey. traité ko de góor jigéen traité ko de tous les noms. c'est pas normal. ñu ne Bah Diakhaté dañ koy jàpp pour lan. c'est pas normal. Mhm. ku ma am ndey ku ma amul ils ont fait tellement de bêtises journalistes yi ñu jàpp Pape Alé Niang a fait pire que ces journalistes là. té mi ngi tay ñu jox ko RTS. ak ñeneen ak ñeneen. d'accord xam xam nga mm-hmm. ndey li ngay wax mm-hmm. euh peut-être ñun ñëpp d'accord na ci mais li ma lay wax rek. Mm-hmm. Euh, gis nga man xam nga ci li lay roy ci lan lay roy. lu baax dama roy ci lu bon. amul nak nut ki mëna def ah be ma di ko top ci lu bon soy def lu baax dal mun na mun nangu naa top la ci lu baax donc. li fo liñ fi don def mu nek li mu doon ñun ñep ñu xam ko ken nawlo ah suñ mu continuer Sénégal non lay continuer si loolu la Sénégal suñ bëggé mu dak il faut que ñu commencer d'accord ko dès maintenant. mais pas avec la dictature. Ouais, euh, je suis d'accord avec toi. La dictature, ne va avec rien du tout. La dictature ne va avec rien du tout. C'est dans euh, le dialogue, euh, dans le respect mutuel et dans la considération mutuelle. Je suis entièrement d'accord. Wow. bëgg moi, que le Sénégal désormais comme un pays comme il était un pays démocrate mm-hmm. un pays où euh, les gens connaissent